entreprise boo ko yoree da ngay def investissement def exploitation plan Sénégal émergent benn plan la boo xam ne bii il faut que ñu tëgg Sénégal tabaxaat ko à travers les trois axes taux de croissance bi mais également développement durable capital humain accélération accélération de la de, du, taux de croissance je l'ai déjà di mais ce qui est important mooy loolu yëpp jeexital wi mooy infrastructure yi nga xam ne réaliser nañ ko. Mhm. dafay vaincre le temps et l' espace. bu ñu tegee li nga xam ne mooy investissement exploitation bu ñëwee le panier de la ménagère dina ko sentir la pauvreté c' est vrai que mi ngi nekk ci biir askan bi te sonal na sonal na doomu aadama yi mais ce qui important bu ñu demee ba phase d' exploitation pauvreté bi yokkul c' est à dire que te aujourd'hui euh, bu ñu jëloon bu ñu jëlee benn année euh, par exemple 2014 emploi yi nga xam ne créé woon nañ ko aujourd'hui dafa doublé mais ce qui ce qui ce qu'il faut constater également il y a un boom démographique te également il y a beaucoup plus de diplômés il y a beaucoup plus d'investisseurs il beaucoup plus de créateurs d'emplois mais aujourd'hui bu ñuy wax xëyu ndaw ñi ministère de de l'emploi et de l'insertion aujourd'hui ñi ngi recruter ndaw ñi ci localité yi non Jakarta Jakarta dans le secteur privé xam Jakarta di ko dawal ça c'est à titre privé. mais dama xamul ban secteur la ñu recruter ndaw yi moom laa bëgg nga nga leeral ma. ci waaw mais secteur insertion de dans le cadre du ministère de l'emploi dans le secteur dans dans le cadre du xëy ndaw yi ñu ngi recruter des jeunes di leen defal ay CDD ay CDI ñu liggéey mais ce qui ce qu'il faut constater également dans le dans la politique d'emploi de l'État il faut que ñu créer des cadre où les jeunes se forment ba nga xam ne bu ñu génnee dañuy opérationnel moom la ñuy wax l'employabilité. tey ki nga xam ne dafa def une formation généraliste pour nga insérer ko mu opérationnel c'est tout un problème. Mhm. et on a un enseignement général. mais ce qui est important également mooy xale yi nañu am esprit d'entrepreneuriat bañ a xaar lépp ci état. état mënul faj lépp mënul faj tous les problèmes du Sénégal. mais les jeunes ont commencé hein xale yi ils sont très entreprenants mhm. ils sont avec la jeunesse je sais que ni y a des yoo xam ne ñu ngi koy dund mais ils ont envie de créer quelque chose de mettre en place un projet. mais de réaliser leur propre futur. Mais ce qui est, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est que l'État les encadre, que nous créions dans, dans, dans, toutes les localités des centres de formation. Mhm. d'encadrement également jàngal leen nan la ñuy créer entreprise comment créer une entreprise mais également comment accéder à la euh, au financement mhm. mais aussi comment euh, gérer du personnel ça c'est très important le management le management mais bu fekkee ne da nga jee génn université am un de droit un master en comme ñun bi ñuy génn université boo amul chance réussir concours da ngay chômer et loolu moo bari léegi également su amee boom démographique xale yi toog liggéeyuñu ça crée ça crée euh, vraiment un problème boo xam ne bii c'est un bo c'est retardement mais état bi daal en tout cas le ministère de l'emploi est interpellé dans le cadre de l'emploi des jeunes la direction de l'insertion la direction de l'emploi également donc ñoom war nañu mën a jëlaat la politique de l'État surtout xëyu ndaw ñi bañ ko def une politique politicienne intégrer les intégrer les jeunes que ñu liggéey mën a am. mais xëy ndaw boobu est-ce que du échec bi ñu gisee euh, flux bi nga xamante ne jeunes yi dañ ko dañ flux jeunes yi ñuy gis ñuy jël à l'aventure di jël ay pirogue ñuy jël yoonu Nicaragua bi ñi nga xamante ne dañu am seen métier am seen tout mais gisuñu seen bopp ci euh, politique de l'emploi de jeunes fii au Sénégal ba mu gën a leen ñuy dem di gàddaay est-ce que ça traduit pas échec bi nga xam ne état ko am ci seen programme xëy ndaw yi. tout à fait en fait le plan Sénégal lépp dafa baax. da ngay nax sa bopp plan Sénégal émergent li muy wax transformation structurelle de l'économie et croissance loolu am na parce que tey am na un flux d'investisseurs yu ñëw Sénégal di investir muy les privés nationaux ak les privés internationaux ñu ngi investir Sénégal yaa ko wax léegi endettement bi dafa chronique chronique sax mais bari na mais de toute, de toute façon effet d'entraînement bi may am aujourd'hui c'est sur les recettes mooy recette fiscale yi ñu mais aussi euh, gouvernance paix et loolu am na parce que aujourd'hui ñu ngi wax modernisation des administrations fiscales ak réforme 17 réformes phares yi nga xam ne c'était entamé dans le PSE loolu c'est en voie leneen li muy capital humain c'est dans le PSE le capital humain il une faille de l'État dans la politique de l'État mooy comment prendre les jeunes en mais les gérer les encadrer mais également xalaat seen ëllëg xalaat nu leen di insérer mais également fexe ba nga xam ne bii dinañ opérationnel bu ñu leen dugalee ci benn entreprise ñu liggéey état nag mënul recruter ñëpp parce que le budget de l'état ne peut pas payer tout le monde mais li mu wax léegi mooy il faut que ñu am esprit d'initiative et c'est dans le cadre du PSE bu ñu bu ñu bu bu ñuy wax investissement l'investissement vient mais également il faudra que la personne bi nga xam ne dañ koy financer que mu mën a xam fan lay dugal xaalisam bu créer entreprise lan lay liggéey ak buy liggéey d'ici deux ans d'ici trois ans est-ce que son entreprise sera rentable ban impact lay am sur son sur sur ses conditions de vie donc c'est très important que aujourd'hui dans le cadre du PSE qu'on mhm. prenne en compte le capital humain et le capital humain n'est rien d'autre que la jeunesse la jeunesse représente une partie importante de la population sénégalaise ñu leen bàyyee dañuy demal seen bopp alors il faudra que ñu canaliser leen jël leen téye leen jàppale leen jox leen encore de l'espoir pour que 2024 mhm. ñu jàpp ne dinañ gis beneen Sénégal te bi ñuy woote ñoom jeunesse bi xam nga ban mhm. Sénégal mooy li ji ñëpp bokk ñëpp jot ci bu fekkee ne dafay am nag rupture de la chaîne état bi di financer. Mhm. ba pare ñenn ñi di ko bloqué ci suuf ñoom duñ jot ci financement bi dafay am une révolution dafay am benn mer mer ngemb boo xam ne bii jeunesse yi bu ñu ko defee ça ça peut créer des problèmes. pour yow looloo animé jeunes yi instant yi maanaam financement dañu gis ne le plus souvent parti au pouvoir da ko jox ay militants pour yow loolu moo révolté. jeunes yi a une ce qui est sûr mooy les hommes à la base war nañ fexe ba financement bi financement yi accéder aux femmes war nañ fexe ba financement yi accéder aux jeunes parce que les jeunes soxlawuñ dara lu mooy ku leen won yoon bi ñuy jaar ba tekki alors suñu amee yoon boobu du soxlawuñu dem Nicaragua soxlawuñu jël pirogue bi li ñu soxla rek moom mooy seen réew ñu nekk fi gis ci seen bopp ci recette yi nga xam ne mi ngi dugg ci réew mi ak endettement bi nga xam ne mi ngi dugg ci réew mi parce que nag mënoo dem club de Paris ñu lebal la te bu ñu lay lebal 15000 milliards ñu ngi ko teg ci ay facteurs mooy jeunesse bi nga am parce que dañuy xalaat sa capacité d' mais sa possibilité de remboursement parce que ñoom bu ñu lay lebal aussi dañuy analyser le risque. mais 15 milliards donc ñooñu noonu lebal dugal ñu ko ci mbay dugal ñu ko ci éducation de service ay. conseils ay waaw dina employer des jeunes. j'ai pas dit lu bon la lu baax la mais mënoon ko gën a investir pour exemple mu ko defoon ci mbay bi nga lay doon. non secteur mbay mi mais xam nga ku la lebal mi dans le cadre du PSE li ñu prévoir mooy moderniser l' agriculture alors c' est en voie mais xam nga sénégalais aussi moo amul patience. dans le cadre du PSE il y a une phase d'investissement. sànq ba léegi yaa ngi naan dans le e. cadre du PSE. dans le PSE PSE. parce que tout e. tout tourne du PSE ba léegi problème yaa ngi dem yi ngi resté mi ngi démarré ba léegi depuis le président Macky Sall ba muy ñëw di campagne lu mu waxoon dans le cadre du euh, yoonu yokkute lañ ko voté la woon ab mu def ko PSE ba léegi ñu ngi wax dans le cadre du PSE nga ne Sénégalais dañoo yàqamti ça veut dire que vous n'avez pas réussi la bëgg wax la révolution économique je veux dire. c'est une révolution positive également ça se bâtit sur la base d'un programme sur des projets et des programmes programme yooyu c'est inclus dans le PSE dañu nekk phase d'investissement moo tax ñu gis infrastructure yi terre bi BRT bi pont yi autoroute yi stade yi mais également on prend en compte d'autres secteur mais tey li ñu am ci fonds li ñu am ci recette intérieure mais également li ñu am ci endettement extérieur supporter toute cette charge là la raison pour laquelle il faudra s'accentuer ñu concentrer wu ci investissement yi les mooy les les infrastructures structurantes bu demee ba nga xam ne bii dem nañ phase d'exploitation mooy li ñu employé employé jeunes yi ci terre bi wala BRT bi mais également recruter leen dans d'autres secteurs mais également moderniser dans moderniser l'agriculture et les autres secteurs comme la pêche mais ce qui est ce qui est important mooy que sénégalais yi ils doivent que ni le PSE. c'est mhm. en c'est c'est à l'horizon 2035 à l'horizon 2035 dañu bëgg un Sénégal émergent et que moment bii nii moment de patience la c'est vrai que ça peut être difficile parce que le panier de la ménagère souffre mais également jeunes yi nga xam ne amuñu liggéey euh, am nañ kersa si gis xool seen yaay. ñoom liggéey sa gis seen amatuñu amatuñu fu ñu yaakaar donc yaakaar boobu noonu jàpp nañ ne en 2024 bu ñu commencé la phase d'exploitation du PSE. avec mhm. le le troisième PAP. Mhm. plan d'action prioritaire. bu boobaa war nañu mën a toog ak ñi nga xam ne ñooy autorités yi. alo Amadou Ba si si si si ci prioritaire euh, des jeunes. je dem di battre campagne day défendre le bilan du président wala day il va aller en tant que Amadou Ba créer son propre structure propre programme bi wala day continuité continuer day doon. su PSE bi comme da nga ne l'horizon lay doon. loolu mënu ma si wax lu bari parce que son programme politique c'est à lui de dresser son programme politique ce qui le bilan de Macky Sall en termes d'infrastructure c'est satisfaisant maintenant en termes de l'état de droit ak le capital humain muy jàppala jeunesse jàppale leen taxawu leen loolu des na lu bari moom nag li mën mooy jàngat ci erreur Macky Sall président Macky Sall son excellence li nga xam ne matalu ko te temps bi mayu ko ko moom mu jàngat ci gën a jubbantiwaat gën a doxal en 2024 il a la chance d'avoir fréquenté Macky Sall ànd ak moom liggéey ak moom dans le cadre d'un programme moom moo gën a mën a xam fan lay teg tànkam en 2024 pour taxawu sénégalais yi te taxawu sénégalais yi nag moom moo tax ñun ñëpp ñu engagé wu jàppale ko jàppalewuñ ko pour nekk directeur wala nekk ministre dañ koy jàppale pour que mu taxawu askanu Sénégal en 2024 te moom lañ ci yaakaar maintenant nag son programme politique dina ko dévoiler au grand jour mais ce qui est important ñun aussi am na not mot à dire la jeunesse a son à dire que loolu noonu jeunesse bi di ko mébét ci suuf mu nekk euh, ñàkk yaakaar bu tas mais également euh, jaaxle. Mhm. xamatuñ fu ñu jëm. Mhm. ak ci secteur yi nga wax yëpp ay mooy emploi wala agriculture wala lu mu mënti nekk en tout cas il faudra que mu inscrire ko ci programme politique jël ko en compte pour que euh, mu am les chances de remporter les élections présidentielles. pour yow Amadou Ba l'ombre de Macky Sall bu ko naree topp ci campagne bi day nekk avantage ci moom wala lu koy désavantage lay doon. avantage lay si moom. xamul tax parce que Macky le président Macky Sall et je, je m'excuse hein euh, son excellence le président Macky Sall il a preuve de grandeur et respect de la parole donnée moom dafa dem ba wax ne sama man Sénégal moo ma a sama bopp il a dit partout et que moom code d'honneur moo ko gën a lu mu am ci kaw suuf donc wane na ni nit ku digne la nit ku respecté parole am la alors sénégal yu bari ñu ngi ko doon xaar ci terrain troisième mandat ñoo ñëpp tey dañoo xalangu. Ah, constitution moo ko ko mayul. constitution may na ko ko mayu ko ko y a des gens qui sont qui ont été là forcé nañ troisième candidature du ma citer tur mais xam nañ leen non pas Sénégal kese mais en Afrique forcé nañ troisième candidature te jàll nañ. mais moom su demee ba jàkkaarloog Sénégal yi ne man damay respecter sama parole parce que Sénégal moo a gënal lépp lu ma am ñëpp ko war a féliciter muy opposition muy parti au pouvoir muy voilà société civile donc tey mu ànd ak Amadou Ba. campagne ak moom loolu force la koy may